وعلى كل آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مباكو يتدي دقلو إرفم رجو فتير ميجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته RFM délu ci wat na ak yeen ci sunu émission bi nu tuddé الله diiné euh tabarakallah nu sékku nu nak sunu mbokk أستاذ مصطفى نجاي دي لا جوتالي نيو ينتي مبوك يو خامتيني بونيو ديغنتيك نيوم رك دي نان لا لاج لاج نانا أستاذ مصطفى من لين موجود فيه ولكن ولكنه خايف ولكنه خايف يخاف ان يتزوج ان يتزوج ثانية نعم ولكن أنا في الطريق إن شاء الله أنا في الطريق أنا في الطريق أحاول وأنظر <laughs> بارك الله ديسك نيو نيو زيار كون نيو سونو سوب ييب نك ني نيك سي بير ريو ميك ني نيك سي بيتي ريو ييب ني نيو لين زيار لين تبارك الله آه، موم خمغا آه، soppe yi dinañu yaatu ba doo mën a sax tudd naan maa ngi nuyu sàmba wala maa ngi nuyu Demba waaye ñu woole leen ñoom ñëpp nuyu te ziyaara leen tabaarakallaahu ñaan itam yi ci réew mi mhm. yi ci réew mi ak yi ci réew yi mhm. yal na ko yàlla dànk amiin na ko yàlla dànk yal na ko yàlla dànk yal na ko yàlla dànk te ñu te ñu waggar te fagaru te fegu te tuub والله وقر فيغو توب دال توب مات نكو دي الله مات نكو لول في جمان طول موم دال تي الجوت نسك وخون نكو بيغ دي وتوبوا الى الله جميعا خمغا باي ول كين دي جميعا لا واخ لاي دك xam nga li tax tooñ sa borom saas mu nekk lu garaaw. bu ñu demee bay tooñ suñu borom kenn dootul digle lu baax kenn dootul tere lu bon. dëgg la léegi ñiy digle yépp digleetuñu lu baax. Hmm. maanaam seen njëriñu bopp la ñuy digle. Hmm, seen intérêt bopp la sàmm. waaw ñiy tere yépp terewuñu lu bon bul ma yàqal li may defal la. Hmm. yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon mu ni bu ngeen digleetul lu baax te reetu leen lu bon sunu boroom dina leen xiirtal loo xam ne da ngeen ca toll ku ngeen gëna yaakaar ci kaw suuf bu dékkee loxoom ne yàlla may nu nàngam sunu boroom ne maa lànk mayewuma te nag fii nu toll nii ñu ñu gën yaakaar ñi ngi ñaan mais sunu borom mel na ni dafa tànqamlu de parce que benn cas la ñu amoon ñu naan yàlla na fi yem ñëpp di wax yàlla na fi yem. léegi romb nañu benn cas romb nañu ñaari cas romb nañu ñetti kaa mm-hmm. ak yeneen yi menacé. est-ce que jaaduwul ñu dëpp. jaadu na jaadu na jot na. moo tax alhamdulilah. jaadu na jot na ah, euh, moom yi nga war a wax yëpp. Mm-hmm. Mm, bo dëgg la mm-hmm. euh, benn mbokk dafa bind barki démb mu ne am na ñoo xamante ne bi ñu ngi déglu raxasu ñu ngi diglee raxasu. fàtte nañoo digal njaboot yi ñu jàpp.

mu ne ko waaw lan moo ma tax a sibburu mhm. mhm. donc ñun war na noo xalaat feebar bii nii lan moo na ko jox mhm. tiitaange gi àdduna bi tiit lu leen ku leen tiital kenn la rek mooy borom subhanahu wa taala loolu rek. parce que fi mu nekkee nii kenn tanewul ci ku am doole ku amul doole. pexe amu ci démb dama dégg démb dama déglu fii ci ci édition spéciale bi. Mhm. Euh, ma déglu euh, euh, Babacar Fall dugal dugal benn extrait bu président Macky. Mhm. mu ni mu ni ku am doole. ku mhm. amul doole ku ñàkk ak kuñ. ku weex ak ku ñuul ak yooyu mu tegalee ko noonu ba ni ñoo ñëpp ñoo ci yem. tey ji ma xëy déglu. ñi ëpp xaalis. Mm-hmm. ci àdduna bi. Mm-hmm. ñi ëpp xaalis. Mm-hmm. affaire bi laal na leen. waaw bu dee football kat la. bu dee leneen la bu dee leneen la. Eh, loolu laal na leen. lay dëgg la donc maanaam boo dee xool doo xam. Eh, est-ce que li li ñu war a def eh, delluwaat ginnaaw. léegi di yàqu mbaa dal la la alam yar moo tax gis nga euh, teggi suñu tànk fi ñu ko teg. Mm-hmm. moo am solo. Euh, dëgg la nag ñu ngi naan nañu nañu nañu nañu dindi euh, ndaje yi nañ ko moytu. Mm-hmm. dëgg la ca ca Kaaba ga teer nañu umra tere mm-hmm. nañu peut-être ñu ngi. xalaat pour ñu tere aji màkka gi peut-être ñu ñu ci xel ñaar pour tere ko wala ñàkk ko tere. waaye ala kulli du du ndaje diine yi rek lañu war a tere. waaw lépp luy ndaje rek. du ndaje diine rek lañ war a tere parce que fi mu nekk nii nit ñi booy wax dañuy xalaat mhm. euh, di xalaat julli jumaa yi di xalaat jàkka yi mhm. yooyu ñuy xalaat noonu ne euh, ndaje yooyu di mën a am. Mhm. di xalaat gàmm yi di xalaat màggal yi di xalaat cérémonie yi. am na yeneen ndaje mais am na yeneen ndaje. nañ ko tudd moom lépp luy ndaje mbooloo rek bu ñu teer nañ tere yëpp tout court nañ ko tudd. ndaje yi am dafa am ndaje xamante ni bi seen contact da mooy gën a jonjoo mm-hmm. waaw euh, mooy gën a jonjoo mm-hmm. euh, soirée yeeg mm-hmm. euh, baal yeeg xam yeneen stade yeeg nangam nangam yeeg yooyu nañ dañ ci gën a bàyyi xel te te xoolaat bu baax a baax moo tax gis nga kuy jël benn décret wala benn atte wala benn arrêté da koy jël mu mat sëkk parce que nit ñu toll nañu foofu. ah parce que boo xoolee fi boo xoolee Macron fee France ñoom fi ne nii à partir de lundi incha allah. dañuy tëj école yeeg préscolaire yeeg université yëpp dañ koy tëj. ah parce que barab moo loolu dajale. ñun suñu réew dafa am lu ñu doon wax dañ daan wax xoddiku. bala ngaa lakkale. xam nga xoddiku mooy fi nga xamante ni safara wi mën na faa egg. Mhm. nga dindi nga teel ko bay ba mu set ba mu set. Mhm. loolu mooy xoddeeku. Mhm. bu ñu ko teelee bay mm-hmm. nangu nañ ko ci sunu làkk mais mm-hmm. nanguñ koo jëfe mm-hmm. dañuy xoddiku lépp lu nga xamante ni bii mën na indi musiba nañ ko nañ ko nañ ko moytu te gis nga oustaz lépp li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon nañu ko mhm. bu ñu ko waccee dañuy gis conséquences yi pour dëggal li nga lislaam mooy mooy dëgg-dëgg diine mhm. xoola yonent bi alayhi salaam bi muy bi muy joxee maanaam li ñu tuddee alxijru saxi bi mhm. mooy quarantaine bi waale ba waale mën na junne at ak nangam kenn xamul loola médecine léegi na ko parce que xam na ni bépp dëkk boo xam ne bépp bi ardan la wax ard nakiri la bépp suuf boo xam ne maladie bi am na fa ku fa nekk toogal xaar fa yàlla def sa matukaay mais bul daw waaye ku fi nekk bu fa dem. mais nit ñëw na feebar am baras ñëw di jaayanteeg yonent bi bëgg ko tàllal loxo yonent bi def ko nii. al axd bil asbab da ko def dafa am solo ne ko ne ko jaayante na noog yow def ko nii bañ ko bañ a seeree laamee. Mhm. parce que xam na ni bu ñu seeree laamee mu contaminé. waaw parce que waxoon na ne firra mina majzum kama tafirru mina asadi. <laughs> <laughs> sallallahu alayhi wa sallam maanaam tant que tant moom jànguñu ko. Mhm. ba noppi jéem ko tatu duñ dem fenn maa la ko wax ñu problème duñ dem. dëgg la xutba yi baax na indi nit ko mu ñëw taxaw wax baax na. Mhm. mais ñun ñëpp ñoo war a jël sunuy matukaay. Mhm, wallaay dëgg la wallaay dëgg la ñoo war a jël sunuy matukaay. bii passé euh, wax naa ko fii ci jataay bi wóotu la fi. Mhm. ma ne maanaam ñun jillu kenn duñ jàngal set. déedéet déedéet ñoo ci jiitu. parce que suñu prophète muy suñu yonente ali sallallahu alayhi wasallam mo gëna set ci kaw suuf te moo jàngal set. wallaay dëgg la xoolal julli sa bo xey lu gàtt ga da nga japp mu minimum. juroom yoon ci bas bi. lo pour la na pour set la. Hmm. bala ngay lek ba fi ngay jullee yëri ngay sol yëpp dafa war a set parce que xóodoo sénatum inde ko li masjidil alxuraan kon mm-hmm. set ak yooyu moom lislaam defe naa kenn du ko jàngal léegi nag fexe tam ba nattukaay matukaay yi médecin docteur wax ñu jàpp ji ak di ñaan yàlla tuub itam man gis naa ne mooy solution bi loolu rek la du leneen de du leneen de euh, tuub gi mm-hmm. moo ci jiitu mm-hmm. tuub gi nag euh, responsabilité individuelle la waaw kenn ku nekk waaw xam nga sa bopp kenn ku nekk dañu nettali ñu ni yoon ci yàlla Moussa dafa am benn jamono Euh, waa dëkkam ñàkk ndox hmm. ñu ne dañuy dem def salaatul istisqa hmm. julli baaw naan hmm. ba ñu demee ñun ci yàlla Musaa ni ñun ñëpp na tuub ndax yàlla rus na am kenn koo xamante ni kii daal di toog def jal jabu ci xolam wax ne sunu boroom bu fekke man ma tax nga xagn ñi ndox mm-hmm. ma ngi ñaan nga jéggal ma ba may ñi ndox wallaay ndaysan mm-hmm. mais laata muy wax loolu ñaan nañu ba sonn te ndox wàccul te ñaar buñ ko mësaan def ñuy pare ndox ñëw ndox wàcc mm-hmm. yent yàlla Moussa ni ah am na koo xamante ni kii day borom bi nee na kooku rek moo téye affaire bi mu tuub jabu ci xolam tuub sunu borom ñi njàqare bi ñu ci yàlla Moussa ne sunu borom doo ma wax kan moo nu bloqué woon. Mhm. pour bëgg ko xam. Ah. sunu borom ne ko kon du ma nekk nit ku am sut du ma nekk jëmm ju am sutura. wallaay ndeysaan. Mhm. du nekk jëmm ju am sutura. Mhm. moom def na la muy def fekkewu leen. tuub na sama digganteeg moom baal naa ko wuññi naa njàqare bi. donc kon responsabilité individuelle la. kenn ku ci nekk. na yëg ni moom. نجوم تيم مو اندي لي دقلا تا استاذ كشف الكروب ممكن نقيده واو مو برم سبحانه وتعالى كان في كوجي اقرا الحاجات اي ممكن كبايا اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف الصوت والله يدقلا ويكشف الصوت والله يدقلا والله يدقلا موم رك لا دونك كون موم نين نيب كان كو تي نيك من ناكو ديف nga ديف كو كينن ديف كو كينن ديف في ديغول ديف كو ابرانتي بي ديف كو باسكو بن اكو بن نجوبوت بوتوغ اك بوتوغ رك من تخ سونو بروم واو واو Euh, xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon nee na euh, nit ki benn nit bu def benn ñaawteef. Mhm. mën na du tax yàlla duma ñëpp. Mhm. mais bu ñu demee ba mu matale. Mhm. waaw ñëpp di ko defandoo. bu ñëpp di ko di ko defandoo. di ko fësal boole ci. waaw mooy yàlla ko nañ ko fës kenn bëtu ko léegi. ngay gis koo xamante ne kii dañ koy jox télé wala ñu jox ko rajo wala ñu yóbbu ko ci internet bi mu wax. di de barki dem maa ngi gis kuy def yéene di diine moo ñu tardeel. da ngay dégg yooyu baat yu garaaw rek. benn jigéen moom ma envoyé vidéo bi mu ngi ko defee ca Manhattan la xaw ma Atlanta di wax ne diine moo ñu tardeel mais sëriñ bi euh, maanaam yooyu provocation ñuy provoquer ci ci àdduna bi diine mm. moo ñu tardé. Mm. te ki kay wax di sénégalais naan j'ai fait cinquante sept pays mais gis naa ni pays yi ñu ngi avancé mais ñun diine moo ñu tardé waaye sëriñ bi diine naka la ñuy tardel xamul xew diine naka la ñuy da lay avancé mais du la tardel waaw loolu maanaam nit ñi moo tax man yi xale yi ma toogaloon di toog man leen kaay leen déglu lii ñu déglu pare man leen mm-hmm. parce que man loolu laay def su ma mm-hmm. gisee dara mm-hmm. ña ma toogal dama leen wax nañ ko jàngat kenn ku ne joxe ci point de vue am waaw ba ñu paree ma wax man yi nit ñi dañuy jaawale dañuy jaawale euh, diine ak nit ku bokk ci diine waaw bokkuñu bokkuñu de kuy mbubboo diine ku koy dund moom du benn bokkuñu man leen diine li mu rëdd loolu day jariñ ba àddunay tukki parce que jógewul ci loxo nit ci ci borom bi la jóge nit ki nag mën na nekk ci biir àdduna bi mhm. di def yëfi boppam mhm. ñu koy askanale nangam mhm. waaw bis bu nekk nga gis koo xamante ni kii dañ koy jàpp di ko bantal day tuddoo kenn ku mu doonul waaw nga génn ci <laughs> ñu jàpp ko bantal ko. Mhm. ndax day tuddoo kenn ku mu doonul. Mhm. léegi ko nga xam yaa ngi koy tuddoo te doonuloo ko. Mhm. mooy indi ñu bantal ko. waaw donc kon ki diine mënul tardel kenn. déedéet déedéet loolu moom loolu wax jàpp la. diine moom mënul tardel kenn la preuve mooy démb ci ngoon. ki def acte bu rafet bi. waaw sëñ Mountakha yéen yàlla sàmm ko te dëgëral ko macha allah joxe na leçon vraiment tam. kooku nitu diine la waaw Sénégal yëpp nag. kooku diine la dund. waaw dëgg la de. léppam diine la moom. diine la dund. waaw dëgg la de. geste bi nu mu. noble dafa noble geste bi nu mu nobale. mais macha allah sëñ Bass Abdou Khadre tamit. waaw discours bi ni mu ko ni mu ko moole. ba joxe ko am na solo rafet na. am na solo macha allah am na solo. ni mu ko moole ba joxe ko. rafet na. parce que tamit inna rasula bi qadri al mursal. wallaay dëgg la dëgg la nit ki. koy représenté bu fekkente ni bi ëpp na la daraja itam mhm. ci jëmm boo fa taxawee ñoo xam nga xam ne wax dëgg yàlla tabaarakallah mais wax ji ni mu ko ëmbee jekkal ko ba mu jekk mu wax ko noonu mhm. euh, yàlla bu mu yàlla na dugg ci nopp na ko nit dégg waaw ko yàlla na dugg ci nopp yi am na solo am na solo ndax oustaz joxe na exemple nag man war na ne itam maanaam ñi gën a tedd ci kaw suuf ci ci ci jullit ñi da dal na leen waaw waaw kon nag jombul kenn déedéet waaw liy solution mooy ñaan yàlla japp ci dëttukaay yi kër docteur joxe te mooy matukaay yi mm-hmm. ba pare nag tuub dellu ci dellu ci yàlla bu ñu ko defee rek yàlla mën na xam nga xam nga xam nga geste mm-hmm. citoyenneté mm-hmm. acte bu noble macha allah sama réew dëgg la xam nga dañuy ñun fii ci réew mi lu nekk lañ doon wax fii ci réew mi alal ji ñuy jël di ko jox sëriñ si waaw loolu du dégg nañ ko ci réew yi ci rajo yi koy wax campagne bi alal ji ñuy jël di ko jox sëriñ si mm. nangam sangam ñoom ay mm. citoyen lañu comme ñun nangam sangam mm-hmm. loolu dégg nañ ko ba tey waaw dëgg la mais tey jii mm-hmm. bu fekkee dañ leen ko joxoon mm-hmm. delloo si nañ ko ci askan ci askan waaw macha allah loolu lu am wax dëgg lu am solo la dëgg yàlla am na solo rafet na trop bu fekkee joxuñ leen ko woon organiser wu nañu ba wan nañ ñu yoon. Mhm. kon désormais bu fi kenn waxati ni. Mhm. kilifa yi waxuñu mhm. dañoo yemuñ ci wax mais dañ cee boole jëf. jëf duñ nag tuur mais dañuy pratiquer. waaw dafa am man man euh, ci guddi gi yëpp daf ma marqué. macha allah. am na solo Oustaz parce que parce que dama bëgg dama bëgg parce que fi mu ñëwee dafa dafa kii daal fi mu ñëwee dafa waaw dafa baax da baax moo tax dafa dama bëgg lu baax ku baax mooy bëgg lu baax ndax euh, gest bi hmm. dafa noble dëgg la dem dafa noble dëgg euh, am leen lii hmm. dimbali ko leen ko ci bi ma tàmbalee ko ak appel bi mu lancé ci képp ku ko mën tam waaw mu def noonu loolu loolu borom alal yi milliardaire nañ nañ nañ nañ dégg sëñ bi wax léegi nag li li ci am solo hmm. mooy am na loo xamante ni bii baadoola du ko organiser déedéet buur a koy organiser taar moo ko mën dem la preuve mooy hmm. kilifa gi wane yoon gi mu wane yoon hmm. bi mu ko yëkkatee njiitu réew mi la ko yónnee waaw njiitu réew mi ne ko joxal ma ko diw ci hmm. làmmiñu Sëñ Bass Abdou Khadre ni ko nettalee donc kon ku bëgg def geste nañu won nit ñi bëgg def geste ne voie bi ñuy jaar fi ñuy jaar fii la loolu tam lu solo la parce que tamit compte wala nangam dafa am sama classe gi dafa am fu ñëw fu lu ñu aay dañ ciy raaxaloo de dañuy ñëw ne sëñ bi mu yónni nee ne nañ ko ah. dajaleel nangam pour nangam sàngam su ko defee yooyu yëpp ah, mooy li ma doon wax sànq mm, tuddoo mm. loo doonul waaw ah, dëgg la dëgg la tuddoo loo day bari waaw mm. euh, lii daal wane na ni l'islam tardeelul kenn déedéet waaw l'islam tardeelul kenn moo tax euh, mbokk moomu nga xamante ne bi moo def vidéo bi mm-hmm. te defe ko ca Manhattan xaw ma Atlanta mm-hmm. di wax ne dëkk bi dafa dafa lii mm-hmm. dëkk boobam mu doon taxaw di wax loolo foofa jàngoro jànga fa waaw démb la seen président jël benn xaraar mhm. wane ni avion bu jóge ci Europe bu mu fa dugg mhm. kon jàngoro jànga fa mhm. te nawuñ leen ci diine déedéet déedéet déedéet bu fekkente ni bii développement kese moo yor mbir yi am na lu ñu manqué waaw la dëgg parce que nit dafa am lu côté bu matière am côté bu nga xamante ni bii dafa dafa dafa mm. dafa dafa. spirituel spirituel. Mm-hmm. donc kon loolu dafa am solo. mu mm-hmm. ñu gën a mën a bàyyi xel ci loolu. Mm-hmm. Euh, vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaan sunu borom. subhanahu wa taala. Euh, yii nu fiy gis. yàlla na ko yàlla dànk. amin amin amin amin amin. yàlla na ko yàlla dànk. amin amin te ñu te ñu te ñu dellu ginnaaw. tuubalaat borom bi subhanahu wa taala. réew mu mel nii nga xamante ni bii juróom fukki nit kese lanu mhm. ñun suñu réew juróom fukki nit kese lañu. Mhm. nekk benn mètre bu carré. Mhm. ñun juróom fukki nit ñu bokk mètre boobule. fi lañuy tudd mbiru góor jigéen. fi la ñuy tudd ay viol. fi la ñuy tudd agression. fi la ñuy tudd fi la ñuy tudd fi la ñuy tudd fi la ñuy tudd. lu bon lu nekk. lu bon lu nekk fi ñu doon dégg fu ne. léegi ñu ngi koy dégg fii ci biir ah, réew mi. sunu rajo yi bu ñu xëyee ak sunu télé yi bu ñu xëyee. Mm. Mm. yow da ngay dem ba yaakaar ni sax kenn julliwul fajar wala kenn julliwul <laughs> tisbaar wala kenn julliwul takkusaan ndax yu bon yooyu rek la ñuy dégg. Ah, waaw sëriñ bi yu mel mm. noonu nag. dafa jar nag. Ah, ñu bër. Mm-hmm. waaw dëgg la. war nañoo bër jël vacance daal ko ñëpp ci war a dugg waaw oh. ruq mënakat moom jël vacance ñëpp war nañ cee dugg moom jël vacance waaw am na solo daal da ngay gis jigéen nga xool ko ngay warante man ki ma gis nii jigéen la wala góor la mm-hmm. kiy wax nii est-ce que am na benn toq imaan ci xolam. Mm, wala amul benn toq imaan ci xolam. ndax ni muy ni muy aborder mbir yi. Mm-hmm. su fekkee yàlla bind na keneen koo xamante ni ki mi ngi taxaw fale naan naan eh, moytu leen. Mm-hmm. dañuy jël kooku sam ko sam. Mm-hmm. waaw xam nga baatu sam. waaw ko daal. ok. rek ñoom ñëpp songandoo dal ci kawam. ba noppi ne di fexe pour mu fakkastalu mbaalu taq ci moom fakkastalu. ba ñu ba ne ñëpp a yem. waaw mu sëriñ bi mel noonu ci biir réew bu mel nii. loolu jaaduwul. dëgg la dëgg la ah. dëgg doomu jullit yi doomu nit ñu baax ñi. nañu fàttaliku ne dafa am fu baax fu ñu bokk. kuy def sa sa njombe. nga wéet ci sa ruq def sa njombe yaak sa bopp. Mm-hmm. te bañ ko indi ci penc ah, mi bañ ko tasaare ci biti. loolu am na solo moom. wéet def sa yu bon nga xam ne yow kenn la engagé. Mm-hmm. mais mbedd mi dañu ko bokk. Mm-hmm. penc mi dañu ko bokk. Mm-hmm. dëkk bi dañ ko bokk. kuy def lu bon nga mais am naa droit rek am naa liberté man de xamuma baatu liberté fan la jóge waaye ko ak baatu démocratie. mu xama fan la jógee de waaye bu fekkoon ne bi mën na bër. Mhm. baat bi mën na bër bañ opérationnel. <laughs> ba ca kanam tuuti ba ñu kii dana baax dana xam naa dégg nga tam temps yi ñi eh, am na ñoo xam dañuy maintenir ay discours yoo xam ne daal affaire bi waroo ko daw est tam affaire noonu la demee da xam ne kii da rek. yonent bi saw sallam kenn gënu ko dégg. déedéet. dafa ni jangoro mhm. ni ngay ragalee gaynde. nang ko ragale nang ko ragale. Mhm. jël matuka yi. gis nga gis nga gis nga folio yi am yi ñuy foyee suñu ko ñi ni mhm. folio gaynde gaynde simbu yoy bu ko waji a tiitalee ba ba mu ba mu ba muy départ. wa ah. kay mbokk salaamaaleykum. alaykum salaam wa rahmatulah ustaz nga def. Ah, sant ah Fanta na nga def. macha allah alhamdulilah waaye dañu nekkoon dañu nekkoon ci yenn yitte rek. Ah, loolu moo tax mais sant yàlla alhamdulilah macha allah baarakallah. bi nga toogoon nu mu tudd ma jàpp. Moustapha oustaz Moustapha Ndiaye. waaw ah, ñu ngi sant Fane na ngeen def. alhamdulilah. dafa am fu ma jox benn yóbbante. Mm-hmm. waaw. nee na comme booy julli. Mm-hmm. am na ngay jàng. Mm-hmm. donc euh, boo sëlmalee. xam nga da nga war a wax astafirullah ñetti yoon. waaw après nga wax. Euh, allahumma anta salaam wa minka salaam te mais xam nga loolu dafa gudd moom parfois da ngay kii dafay wax rek allahumma anta salaam wa minka salaam tabaraka ya zal jalal wal ikram lay yem mm-hmm. du ko eggali mm-hmm. léegi parfois da koy fàtte dafay wax rek euh, astafirullah la après mu def euh, kii yem trois trente trois trente trois yi mm-hmm. léegi après mu ne dafa doon teglu keroog encore xam kan moo ko doon wax ne ko ak da ngay boo paree loolu mm. sa kii yi 33 33 trente trois yi e. mm. da nga war a wax fekkee fajar la trois mm-hmm. lislas mm-hmm. trois falaxa trois naa su fekkee fajar la mm-hmm. e, deux heures nga def bu nekk benn kii bi nga def bu nekk ba ba jee nga def encore trois trois mais parfois nee na aussi moom day ñaan rek mais du du du kii ci du du tenir compte ci ñett ñett yi mais dina ñaan dina ci def ixlaas ak yooyu léegi mhm. affaire boobu nag de li mu ko kiyee affaire bi nag lii ko ne man ni muy julli yëpp mhm. maa ngi wax mais loolu duma ko kii est-ce que loolu fara si farata julli la ko bu fekkee mhm. dafay yàq julli wala du yàq julli d'accord waaw léegi en plus li nga doon wax ci affaire corona bi donc ñaan ñaan yal nañ ci yàlla musal ma ci mbooloo muy jullit amiin am rassemblement yi nga doon wax mm-hmm. mais am na rassemblement bi nga xamante ne oustaz man loolu moo mën bon doon mm-hmm. mooy bus a waaw wax dëgg la de oustaz chaque jour nit ñaa di dem dugg ci bus di dem liggéey mm-hmm. ñu ngi jël tataay. te bus yi day feex. gis naa Italie barki démb la ñu wane ah. benn bus. ñoo xam benn benn train boo bi daal daanaka amul dix personnes. <laughs> waaw <laughs> donc ah. man daal li ñuy wax naan bu fekkee yoo ñi ko am. Mhm. yal na yem ci ñoom mais sinon vraiment oustaz lii bu lawee mhm. yal nañ ci yàlla musal musal ci mboolem jullit dina nekk loo xamante ne mhm. dina lor Sénégal yal nañ ci yàlla musal parce que rassemblement yi dañuy wax ay boîte ak yooyu sax yooyu sax mën nañu du ñëpp ñoo ci dem mais bus chaque jour nit ñaa nga dëgg de mhm. donc man daal loolu moo ma xaw a tiital. Mhm. xaw ma nag naka ngeen di defee sensibilisation. Mhm. Mhm. ma daal ma ko. macha am na solo eh, merci merci beaucoup. amin amin <coughs> ko ci masala bi. waaw xam naa li mu wax rek ci ñaan yi moom xam nga mm, bokkul ci farata julli. bokkul ci sunna waaye nag sunna si yonent bi saa su saa bu julli bi jullee ba sëlmal. Eh, am na ay formules yu bëri nag. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا سجاد الكرام ولا اللهم احينا على الذكر والشكر وعند عبادتك يو بري بري يو واخلا واي تم سوكو واخ نياك دو يقدر سجلي مي لا گن نك موي كوم نيونت مكو جوخ نكاي واخ سو ما ديف نيت يوم يوخ تام مو گن من ديف تام لا نغا ديف لا مان رك ديم تام ان شاء الله جولي دنا بي يقدر جولي دا انتو كام واي تي ونكو مانا جانغ نك دو مان كو مو گن جارول موي ان شاء الله يالا مانا كو ان شاء الله يقو تي الاسلام مي Euh, mën na nag jàng ñaan koy defee comme ni nga ko wax noonu hmm. parce que jamono jamono ñaan oustaz falax ak naase kursi fexe ba mën di ko jàng itam ginnaaw jul ko ne itam lu am solo la nga hmm. xaraa allah surtout macha allah Ahmed yi léeg yoo moom sallallahu sallam hmm. lam cay aj ci tuyaaba dafay dafay bari lool lool lool lool ci bari lool bi weesal jox naa benn ñaan boo xam mi ngi jóge ci yonente mi alayhi salaatu salaam mooy fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul boobu moom dara génn ci oh. shay'un moom corona ak lépp ci léegi wax ko ñetti yoon suba ak ñetti yoon ngoon moom muslaay protection yi ëpp dool fi jamono ji ñuy wax ci la bokk di ko def incha allah ñetti yoon suba ñetti ngoon nga xam nga yàlla suñu borom hmm. daf nu wax ne nanu ko miin a tudd waaw moom borom bi waaw nañ ko miin a hmm, wa taala ok mbokk salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa barakaatu Oustaz Thiam waaw kay ku ko wax waaw man la damay ci bi dama doon laaj kii bi nga joxe woon après salaatu xayru mi ne na alhamdulilah bi neuf yi la ñuy jiite wala quatre yi la ñuy jiite. neuf cent neuf nga war a wax wala neuf rek. neuf cent quatre. Ah, ok. <laughs> ma ne neuf bi la jiital wala quatre yi la jiital ban mooy jiitu. na mat neuf cent rek. ah na mat neuf cent quatre loo jiital baax na. waaw xam nga ñaan yëpp mu ngi dépendre ci ci yéene baak teewlu baak loolu fa la yëpp aju. waaw man nag dama doon def dama doon def quatre ba pare soog a def neuf cent yi. alhamdulilah na yéene ba sell rek. waaw baax na. <laughs> jaam jërëjëf ñu yéen doon jàmm salaam merci beaucoup. waaw yal na yàlla boole sopp waay mais danga maa ah. sopp du nëbbatu sopp. tudd noo tudd. <laughs> Ah, bàyyi noonu ah, rek ah sëñ yaa ngi làq te. <laughs> macha allah kon oustaz am nga soppi buy làq te incha allah. Uh-huh. <clears throat> xam nga oustaz. Mm-hmm. Euh, ñaan. Mm-hmm. يالا داف ني سانت ني لن تور يالا لا نا بري ذكرا كثيرا لا امون لي كون دافا بري بو بري تور يالا لا واخ دي واخ ما اي جورنيك اي اي كي مي تور يالا منول بري با نيك اوفر دوس واو دغ لا دوكو تود تود تود يالا تود يالا با ني ني لي دافا اوب سي يارامام ديديت واو tur yalla mom do ci yaram bok hmm. fek yang koy tuddu sunu hmm. borom di yak ya tuddu hmm. te sunu borom neena bo moy tuddu malay tuddu Mm-hmm. soo ma tuddee ma tudd la mm-hmm. te mbooloo mi ngi may tudde dinaa la tudd ci mbooloo moo xam xamante gën fopp qualité sa mbooloo mi may tudde dëgg la mm-hmm. kon wéet tudd ko wéet ci li ko tudd ko am na solo moo tax euh, li nga wax léegi ne yonent bi saa sallam euh, bu ñu woy bu ñu mosaan a sëlmal julli daan na daan na def yenn dog yi ya nga ca man nga def ko parce que bu ñu nee daan na wax lii daan na wax lii daan na wax lii daan na wax lii. Mhm. am na ko man bii. Mhm. am na ko man bee am na mhm. ko man bee. macha allah su ko defee yow bi nga mën. nga yem ci nga yem ci keneen bi mën bu ko gën a kii. mu wax ca ba bëgg na kii. mais lii kenn mënu ko déedéet am na boo tolloog yow. booba nga def ko rek. tey sa yéene sell. incha allah la yéen la nga kii da koy daal di mën. lu am solo la mais eh, ni ko assuré dalal ko xelam. ci ci ci julli gi wan ko ne ko julli gi incha allah. sunu borom nangul na la ko. tabaarakallah macha allah الله ما شاء الله استاذ امنا سولو صاح خمنا تام اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق تام كوكو من تقوى جمن جيتم دفنا امنا سولو آه، دي سما بن سما بن ياي آه. آه، فاطمه ليسان فاطمه منت ليسان ما مسون وخ بو خلل قول قول اعوذ بكلمات الله صباح مساء ما شاء الله صباح جاي انت قول يا tabarkalla <laughs> mag mu baax a baax a baax mag yi dañoo baax am nañu baax ci mag ñi ah. ndekete euh, boo ko waxee mm-hmm. assuré na la sa journée waaw bu mm-hmm. ngoonee boo ko waxee mm-hmm. assuré na la sa guddi wallaay wallaay te ñeenti baat la amoo bi kalimaati lay taammaati min charri maa xalaq daal li am solo mooy gëm gi rek waaw foo ab daal moo ci moom moo ci moo ci am solo baat yi gàttee amu ci solo <laughs> mais mais mais mm. euh, euh, dañ ko talul nag. waaw dañ ko talul. ndax lan. ah dafa am yu jiital. waaw ah, mais yi ne base la quand même. dafa am benn bis jëlal kii téléphone. waaw kay mbokk salaamaaleykum. Oustaz ah. mm-hmm. ci basmala bi aussi laa lay laaj. la mm-hmm. parfois man ñu ñooy basmala. Mm-hmm. mais aussi ma. xalaat ni est-ce que basmala laa war a wax wala bisimilah. rahmaani basmala mooy lan. mooy bisimilah rahmaani rahiim. kon kay c'est bon <laughs> macha allah. waa déedéet mais. Hmm. basmala rek laa doon wax du ma woon wax bisimilah. Hmm, rahmaani rahiim ah d'accord d'accord d'accord. donc loolu tamit. ma hmm. doon. bu fekkee. parce que balaa ma doon xam ni basmala la mhm. ñuy wax kii mhm. bi mhm. rek laa doon loolu moom man la du keneen <laughs> donc <laughs> may laajte bu fekkee li ma doon wax basmala basmala bi ak euh, lii bi loolu quoi différence ok incha euh, allah ndeysaan macha allah ustaz xam nga waa ah. kay mbokk salaam caabi na sant rek ah, sama waa ji Pape na nga def. sant namu naa la. yéen yéen seen match yi dañ ko dañ ko dañ ko génn wala yéen a ngi fi ba léegi. <laughs> <laughs> xam nga xam nga moom moom moom moom ay ay ay position yu bëri lay taxaw <laughs> yaay sa yaay sama kii référence. xam nga bu ñu diw doomu ndar la rek. Eh. am na position yu bëri. waaw dëgg la de. yaay sama référence. ndeysaan maa ngi kontaan ana Adja. waaw mi ngi fi mi ngi fi mi ngi fi baax baax macha allah. waaw yàlla yàlla nangu. waaw mais dama dégg sa waxtaan bi mu touché ma lool. parce que dama ragal ni. Mhm. la woon parce que man wóor na ma ni am na mag ñi nga xam ne bu ñu doon dund tey épidémie bi ñëw. Mhm. daañu ko régler autrement. Mhm. dëgg la de mais déggin bi déggin bi parce que sëñ. Mountakha euh, Bachir. yàlla na yàgg te. Euh, yàlla na fi yàgg te wër. bu demee ba ni gouvernement bi yéen a def ak seen. ceggal guy mais dafa am ay sensibilité yu mu bañ laal moo tax mu wax loolu mhm. Mhm. waaw parce que bu fekkoon ni sëñ Abdou Lahad la wala kenn mhm. dana jël responsabilité mais léegi àdduna moo tourné tourné bi nga xam ni dañuy chercher lu bare kenn joxeetu joxeetul lépp wa wa vraiment wax wax dafa yomul jamono ji nag waaw mais mais mais ragal boobu ñuy dem ba def parce que moom sax du ragal dara parce que ku fi toogal Sëriñ Tuubaa doo ragal dara mais joxe cër dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jaawale joxe cër ak ragal. waaw te du benn. waaw te du benn parce que nag nit ki boo ko wooloo cër bi yëpp nga koy jox. Mhm. bu demee bay am si li muy wax lu mu ciy desal. Mhm. booba am na loo desal yow. est-ce que mhm. vraiment. ñu ñu de parce que tubaab yi lu ñu mënul faj. lu ñu mënul faj amul. mais lu ñu dem ba ragal. am na problème. man parce que dund naa fa lu yàgg yàgg xam naa ne ñoom lu ñu bëgg faj faj ko. mais lu ñu dem ba ragal taxaw ca. ni mhm. nañu taxaw. Mhm. rek am na problème. d'accord vraiment vraiment li ma lay wax lu ma dund la. Mhm. tànduwuma. nañu def attention xam ne nag ñu dellu ci ñaan. waaw ah, surtout. parce que jullit amul lu dul ñaan. ñaan walaay dëgg la wax nga dëgg de. te bu suñu borom meree dina def sax moom li nga xam ne après parce que ñun la gën bëgg. mais dañu sanctionné ba sanctionné la ñu ca bokkul. dëgg la. waaw loolu laa bëggoon participer. baarakallah macha allah ñu toog ñaan ñu toog ñaan. Mm-hmm. vraiment parce que. Mm-hmm. ku julli rek. Mm-hmm. wéet na nga wéetal sa borom nga ñaan ko. mu teggi. parce que moom rek la du keneen. parce que tubaab bi mën nu si dara déedéet lu leen jaaxal la. te yàlla may na leen fu nekk lañuy ñuy àgg ki dem ba naan da ngay jël. Euh, kiiwu nit kiiwu xar def ko ci euh, beneen xar bi mu am doom te duñu seq dara. Mm. Mm. kooku yàlla may na ko. am na pexe mm-hmm. mu mu def ko si nit defaat ko mu am doom yàlla may na ko. wan na ko mm. yu bare ubbil na ko ay frontière. bu démé bi nak ba maadi bi nga xamné mënu ko téé amna problème dëgg la waaw waaw bilaay bilaay bilaay bilaay bilaay bilaay ma encouragé sëñ Bass Abdou Khadre barakallah macha courage bi mu am di di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg macha allah macha allah borom Touba jërëjëf jërëjëf macha allah contribution bu am solo xam naa ci temps bi barewul mais damay commencé ci Pape Seck mi li wax léegi xam nga kilifa kilifa da koy da koy da koy da koy fital waaw nga may fit. waaw mhm. xam nga yonent bi saa sallam ci mhm. xare badar mhm. bi mu ñëwee eh, ci di ko waajal. te ànd ak muhajiruna la fekk fa ansaar eh, xam nga lu mu jëkk a wax. fital leen ma. waaw ashiru alayya. waaw jox la ma pexe lay <laughs> dëgg la. fital leen ma parce que moom kenn yàllaa ko yónni mais du moom kenn mooy engagé guerre bi. parce que bëgg na xam position gars yi ci nekk. Ah, kay. te léegi yenn saa yi. nit ñi du ñu joxe lépp. déedéet dañuy denc lan li waaw. Hmm. arafa baadahu arada an baadi. walaay dëgg la <laughs> loolu. nit ñi du ñu joxe lépp. Hmm. danañ ko tudd nii nag. Hmm. di woy sama kilifa. mais kilifa da koy dimbale ci jël jël loo ko xalaat. walaay dëgg la walaay dëgg la. boo ñëwoon tey jii nga ni ko ah, man kat maa ngi nasoon def nangam. mais comme lii xam ni sama kàddu jox naa la ko loo ca dogal neex na ma. waaw macha allah wax bu xun nga wax nag. ndax mën nañ dégg mais wax man dégg naa waxu xool ko wax. man moom non non non yenn yenn saa yi damay damay jàng bil bil ishaar parce que ñi ñuy wax dañoo am xel dafa am solo. innal innal innal innal labiba bil ishaarati yafhamu. wala yafhamu dëgg la dëgg la waaw da ngay ñëw ci kilifa. nga ni ko maa xalaatoon nangam ñu war a def nangam. mais jox nañu la sañu kàddu loo ci dogul mu dogu. démb boo dégloo sëñ Bass Abdou Khadre. discours am yëpp. discours am yëpp. am na loo xamante ni tey su ko laaloon ay isharaat la tey su ko laaloon rek mm, mm. Euh, mu gën a matale mat na de mm, mais mu gën a matale mm-hmm. donc yu mel noonu nag dañ koy dimbalee kilifa mm-hmm. Mm-hmm. waaw dañ koy dimbalee kilifa yàlla nu yàlla defal sutura amiin amiin amiin amiin te loolu ni mu valable ci ci benn côté bi noonu la valable ci yenn côté yi tey jii ñeen bu ñu génnoon benn communiqué nañ li ñu doon bëgg a def foo mënoon ko waaw ñi ñëpp ni alhamdulilah waaw ah. ah bul sonn loolu parce que da ngay wane da ngay wane da ngay kii dafay wane yoon ci côté bi kii wane ci yoon ci côté bi. Mm-hmm. li ñu bëggoon def démb fomm nañ ko. waaw keneen ne lii ma bëggoon def fomm naa ko keneen bëgg limba fomm naa ngeen mettre à l'aise yeneen ñi nga xamante ni bii nekk nañ ci liggéey. te oustaz xam nga Sénégal république boobu te bu dee bu dee rawaay mi moom dañu jël décret mu affaire bi jeex. mais fii moom il faut que ñu négocier waxtaan ci suñu biir. léegi nag kilifteef yi ci suuf la mm-hmm. manqué. <clears throat> ci suuf la manqué. Mm-hmm. léegi nag bu ñi nga xamante ni ñoo yor baat ya bu ñu concerté woon tey jii Eh, wax ne ah ñun kat lañu bëggoon def eh, dàq nañ ko. Mhm. ci forme bii lañ ko dàqee. waaw loolu dafa am solo. waaw léeg-léeg léeg nga dégg ku leen ni bëggoon nañu football mhm. euh, woo nit ñi mais léegi barki dem rek match su Paris mhm. Saint-Germain ñu ñëw téye seen supporter wala nga xam ne nit ñi duñ duñ kii dañ koy def jeex na loolu dafa am solo mhm. su ko defee loolu euh, Fanta doon wax ci mala bi basmala mala bismillah euh, loolu ñàkk xam la am nañ suñu benn mbokk boo xamante ni bi génn àdduna léegi Bilal la woon ci suñu jàkka kii ñang danaan wax bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne jàngaleen lixlaas mu ne waxuñu lixlaas de xulu wala ñu wax ba mu laay leer bu am na solo nag ñu bari ñu jàpp ixlaas ixlaas mooy ixlaas su ko defee maa ngi profité sama benn wëllëre hmm. euh, Pape Ba Euh, oustaz Oustaz Pape Ba dëkkoon fële ca Ngumba di frère ci Abiba. Mhm. Euh, sunu borom dafa dogal mu wàcc liggéey démb. Mhm. Euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko aljanna mhm. sunu wëlëroon ku bëggoon lu baax. macha allah ku bëggoon lu baax Pape Ba incha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko aljanna. sàkku ci ñëpp nag ñu defal ko Fatiha. yàlla teeru ko teeru ko suñu bokk moom itam moom itam bàyyi góor gi Ablaye Niang moom itam. waaw ndeysaan est-ce que xam nga bi ñu nekkee xale. bi ñu nekkee xale fekk moom mi ngi liggéey lycée Charles de Gaulle macha allah foog ñu ngi liggéey li Charles de Gaulle bu bu nu bu nu bu li Charles de Gaulle. Mhm. Euh, desitu reer yi. Mhm. bu ñëwee ñun taalibe yi noo ko doon kar mu yor benn welo pooso di ko dawale lii sa Charles de di ñëw Angaltal ñun ñu dëkk Pikine di ko kar mu nuy sottil la mu fa jëlee. macha allah yàlla yàlla xam yàlla yàlla yërëm ko te jégal <coughs> yu baax yooyu na euh, ma noté mhm. nañ ko ci moom. mu daawu ko jël yóbbu ko këram de ko daan kar. macha koy mënu koy sottil yu jóge ci réfectoire ba macha allah na loolu wallaay yàlla xam na ko maa ngi imagine yi sama bët ni muy dawal vélo Pozo di jëw ak moom Richard de Gaulle di ñëw ak moom Angaltal yal na yàlla xarakal ci waaw te liggéeyal na lu bëree bëri bëri macha allah euh, maa ngi gis benn image ci moom benn xale bu koy tegal euh, fi mu doon jànge muy mu koy imité ci ci ci geste te fekk boobu kàddu gi mëntu woon jóg yal na ko yàlla xaral ci amiin yaa amiin xam naa ko am ñu sant la gërëm na santam auditeurs yi incha ngeen jëf